samay maam ñoo ma gënal maam arab man samay maam ñoo ma gënal seeni maam romain man samay maam ñoo ma gënal seeni maam arab man samay maam ñoo ma gënal seeni maam bambara bambana Joola Casamance Joola mm, mm. Balanta Bissau Balanta mm, Lébu Ndooy Sénégal man samay maam ñoo ma gënal seeni maam arab man samay maam ma gënal seeni maam Je m'adresse à toi, le trompeur, le voleur, le mentor des mythos et pseudo-sauveurs a envahi ses vies, détruit mes ancêtres en les faisant tous disparaître. man samay maam ñoo ma gën a seeni maam arab. man samay maam ñoo ma gën a seeni maam Romain Basumo Basumo Mbare ndeysaan Mbare Sonko marginalisé par la magistrature par des magistratures par des magistrats de la magistrature suprême Amadou Ba bloqué à Tangori en Casamance il sera bloqué mais magistrature avec la où on est samay maam rek comme chaque fois li may wax jërëjëfe Serigne Touba man moom égrégore laay wax égrégore égrégore c'est autre chose moo tax temps yi plateau yu bëri damay gis ñu bari bëri waxtaaneetuñu si Ousmane Sonko te man kenn mënuma tere wax ci Ousmane Sonko ndax ci moom laay des ba kër may gis la même kenn mënumaa tere des si moom bi ñuy comprendre jërëjëfe sëñ Bamba kenn comprendre lu woon lan mooy égrégore waxuñu ko pour gëm-gëm waxuñu ko pour yàqin mais mais pour présence pour moom li muy tuf li mën a jàpp pour li muy tuf li mën tooy te loolu Ousmane ko woote woon biir kaso ba tey ñun ça fait combien de mois bi ñu leen ne dañu bëgg a génne Ousmane Sonko réew mi yéen ñu ngi leen ko doog a wax manipuler waat la ñu nekk ci di débat duma ci débat je passe ñun biñ koy live ça fait trois mois derrière duma ci wax je passe parce que loolu c'est des informations est-ce que du quatre-vingt-dixième jour bi lañ ko door a ah, dem leenaat ci live yi vous allez voir que nous depuis longtemps nee nañ leen Sonko dañ ko bëgg a génne dëkk mu bañ ci combat la toll bu leen foog ne nag d'accord ñu dem kombaa mais ñun biñ leen naan politique day pluriel boobu Sonko ci biti la nekkoon wala ci biir ci biti tey bu génnoon ngeen xam ne ñun ñu bari bokkuñu passif bu génnoon kaso ngeen xam ne ñu bari bokkuñu passif xeex bi bi ngeen ko politiser ngeen ñàkk xeex bi Sonko wootewul woon politique Sonko révolution la woote woon bi ñu politiser xeex bi la ñu ñàkk code xeex bi xeex bi dafa amoon code code boo xam ne il ne fallait pas wax suñu ñoo moom ne ñëpp ñëpp ñëpp xeexu ñëpp ñëpp ñëpp pas ñun ñun ñun bi ngeen ñunalee xeex bi lañ ñàkk xeexu ñëpp la mais du xeexu ñun kese xeexu ñëpp moo gën xeexu ñun Pastef bu leen yaakaar ne nit yi dañ leen bañ wala dañ leen contre négatif tey boo leen di exister ba tey dafa am ay parti politique ku ci mel ni Guirassy dafa am ñoo xam ne dañoo nangu bàyyi ñoom seen li ñu doon ngir jëmmi Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ne ñoom dañu nangu bàyyi li ñu doon ngir jëmmi Bassirou Diomaye Faye ñeneen ñi bàyyi li ñu doon ngir suñuy moor est-ce que vous me suivez moo tax tey ñu ñeme naan kandidaa gauche candidat droite si vous me suivez si c'était Sonko seul li ma leen doon wax Sonko kese buñ ko bàyyi xeex bi du gagné dara te moment yi Pastef tollu na fa ah. bu doon tey Pastef ak Pastef kese kese kese kese kese bii heure Pastef du sax présenté candidat ba ñu naan day bokk du bokk am nañ fiche de parenage ay député voté nañ leen ndax Macky Sall nee na leen dissoudre na Pastef dëggal boppam yéen ñëpp accepté ko kenn wàccul xeex mu dissoudre Pastef da ngeen yaakaar ne dañ leen contre déedéet ñun yenn leaders yi ñun dañ leen baab certes que tu penses que waa Pastef ñoo nekk di organiser yëpp ñoom ngay gis ci plateau yi xogaliku ñoom ñoo yor seen làmmiñ di ratatati waa léegi yéen parti politique yi ñëw porte seen i candidature ñoom tey bu ñu defoon comme yéen ñëw ne ñoom it dañuy lekk la leur part du gâteau fu ñu jëm man je me je me demande au juste Sonko marginalisation bi est-ce que ça ne vient pas de partout la marginalisation de Ousmane Sonko parce que tam ñi leen na affaire bi projet la gars yi foog ñu nangul leen benn affaire Sonko bindul projet bi gars yi ñoo ko bind nekk ci seen projet moom Macky rajo ko gars yi gis ne kii mën na porter projet bi ñu ñëw ne ko kaay jiite projet bi mais ñooñu bëgg a défendre seen projet ñu ne leen doo ko fi défendre doo déedéet moo tax ma ne leen woon départ depuis sama laaj nee naa leen lépp loo gis ñaar la bi ma leen naan Pastef ñaar la vous ne m'avez pas compris Pastef ñaar la mu ñuy neex mu ñuy naqari Pastef di projet ak Pastef Ousmane Sonko yaa Pastef du projet et Pastef pour Ousmane Sonko moo tax ma may xuloo bi fi mu toll nii maa ngi gis ñii di live fii panel panel yi alhamdulilah lii moo tax prix man leen bokk ma benn panel ndax man Casamance lay défendre je ne défends que la Casamance ndax foofu xam naa ne bu ñuy waxantee ba màtt du ñu war Casamance bu ñu waxantee ba ne fii lañ jëm du ñu war même bu ñuy saagante suñu biir mais dinañ xam nuñ koy conditionné te lépp lañ leen di wax tam fii mënul nekk. ku ci nekk nag mën na wax ndax ku nekk am droit wax de nit fépp lañu am ay mbokk ñii ne seen projet ne ñu sauver projet bi boo leen ñu ñoom ngiy wax nga dem revigorer ex discours Ousmane Sonko yëpp nga dem dégluwaat discours Ousmane Sonko yëpp tey ba ñu yàgg si fii ñii ne duñu xeex métis a ngi de métisu golo ak dëmm ñii ne ñu xeex mais projet bi lan la projet bi c'est pour le changement booy Amadou Ba est bloqué à Tangori maa ngi ciy ñëw projet bi c'est pour le changement mais Ousmane Sonko moom bi ñu koy dàkk il avait des idéaux pour révolutionner quelque chose pour révolutionner le système malgré que projet bi seetlu leen projet bi ñaata at lañ ko bind avant Ousmane Sonko di ko jiite est-ce que ñu bindoon projet bépp sañoon nañu gàddu projet bi comme Ousmane Sonko yuuxu yuuxu yuuxu ba ñu noq leen si biir dàq leen seen liggéey négatif. su ma daan live après discours Ousmane Sonko booy yu bëri ci la naan non grand bi il n'est pas cohérent Macky lay liggéeyal ma gis nga. lu ma si metti dinaa leen bàyyi ba ñu gagné lépp ba ñu ne leen Ousmane Sonko candidat la ba ngeen ne waaw ma commencé saagante Ousmane Sonko pour wan leen ne man Sénégal laay liggéeyal faale ma Macky Sall faale ma Sonko en grosso Sénégal moom ma ñor c'est parce que vous me connaissez mal moo tax ñenn ñi eh lay liggéey ñu jékki-jékki ne non kii militaire lay liggéeyal kii nii eh saa bu Sonko daan wax. wax lu rëy bu ñu xëyaan ci semaine bi may a Ndour fay kan lay invité bu Sonko sottee safara ba dëkk bi tàng jëpp kan la ñuy invité mu dem marché poisson yëpp fa ay camion glace ñëw ak moom Bassirou Diomaye Faye mu toog ci télé bi mun Maimouna Ndour fay di wax moom moo doon Sonko froid foofu laa leen ne eh ngeen na ma naan man leen passif ñaari passif la sonko bu tàng ak sonko bu sedd tey nag ñu ngi ci sonko bu tàng ak sonko bu sedd dëgg moom mooy sonal de saa bu sonko waxee toj dem leen ku mu neex nag dama révis révisité waat émission yëpp bi sonko waxee Kër ma Massar bi mu demee Walf si boppam ba wax ci in xaw ma lan moo xewoon Walfadjri Sonko wax semaine boobu allez vérifier encore man j'ai vérifié tout avant de parler la même semaine Bassirou dañ koy invité waat te yéen ñi di set saaga Cheikh Yérim yëpp la candidature de Bassirou Diomaye Faye qui l'a annoncé en premier yéen waa Pastef wala Cheikh Yérim Seck qui a annoncé sa candidature en premier qui wax leen ma kan moo annoncé candidature Bassirou Diomaye Faye en premier si Cheikh Yérim Seck non lenn rek a tax mënuma avancer ci candidature Bassirou Diomaye Faye bi Birame Souleye Diop li mu wax France di Birame Souleye Diop wax effectivement parce que moom ak xaw moom moo choisir Bass loolu xaw ma fu ñu jaar bu choisir ko man leur bureau politique leurs affaires là ça m'intéresse gis nga man nit su ma bokkul ci yow du ma wax sa biir loolooy sama cat malgré da ngay xam lépp ñu yónnee la yëpp wax la yëpp mais c'est fou muy réew mi ma ñor sonko bu tàng sonko bu sedd mais bas du sonko sonko du bas sonkoy sonko basay bas loolu foog ñu d'accord si ñun ñëpp pour mën a avancer si combat bi ñu jëm ni Pastef di projet ak Pastef de la révolution bokkul te tôt ou tard Pastef de la révolution mooy gagné que pas que Pastef du projet parce que Pastef du projet daa bëri wax bu sew teesante bu sew kalma ñangal yi si sente bi te xam nga rek man moom bu Sonko falu si ngeen di comprendre lépp semaine laa leen ni may ngeen respirer Sonko wax juum gis nga bu may tàkk di ko saagante da ngeen naan kii du garaaw bi fekk man pour war leen ni gars yi du ay postu je m'en fous de xam man dama intéressé imposé waat Afrique ñun naka lañuy def ba doonaat ñun lu tax ku bëgg a jag Sénégal foog nga ñiroog arab lu tax ku bëgg a foog nga ñiroog romain kër chrétien ñu ñu naan turc kër musulman yi ñu naan ay romain pourquoi ñun Sénégal ñun lu baax bu ko ñu solee sax ñu ne kii tey dafa tubaabe de pourquoi lan moo gënoon bon Sénégal murit ak mbër bu njëkk dañ la naan jigéen lu mu bon bon bon mën na jur murit mën na jur mbër tey de jigéen bu bon dëgg mooy jur président président du système système bi ñuy dund Sénégal jigéen gu bon dëgg moo leen jur tey doon mbër bàkku la doon murit bàkku la ñenn ñi ñu ngi dugg ci ay débat di wax ci lii wax di wax ci lépp mais man Serigne Touba ci xaddimatul mun naa jaati man sëñ Bamba gars yi sax ñoo ci ragal yenn yi mais dinaa ci mos a ñëw nen dem. mais ñu dem. ay nit dem nañ ba sama waajur ne ko wéeru ma ndax dem leen laajte Casamance man maay kan ak naka laay jullee allez demande lu waay mën a liqaam balaa maa kàbbar doxale sama diggante ak sama borom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ne barki borom tuubaa kàbbar su ma sëlëmee ne julli jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam seex Ibra Fall bu Muridiin man sama yaay bi ma yar yàlla na fi sama yaay bi ma jur yàlla na fi yàgg te wér seen yàlla ji ñu ji leen pompe ku maak moom leen man suñ tuubaa doy na ma wutiwuma yonent dëkku kenn seerafaal doy na ma ni ngeen ne bañ dégg diine ji bees gi dina dugg Sénégal de am suñu yàllay bopp am suñu yonent bopp par force fi ngeen bëgg ci Sëriñ Bamba mooy sama borom pour muy créer man sëgam sëñ Saliou moo may absenteloo assumala sëñ Bamba sëñ Moustapha Saliou di sama lépp ki mit piir bu ñuul sëriñ Bamba mooy borom su ma moomul woon man ma sàkk sama ruu jox ko li mu ko doon wax jërëjëfe Mbàkke sëñ Moustapha Saliou soo ñu moomul woon ma jox la sama ruux man Mbàkke balla ay sabre sama gëw ma àjjana gëw safar Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul laa gëm keneen gëw ma ko mooy der bu ñuul moo ma won sa borom moom mooy le noir qui m'a montré le bon Dieu gëw ma Cheikh Ahmed Tidiane gëw ma Jeylaani gëw ma leen c'est des arabes je ne crois pas à eux gëw ma seen imam Xazali je ne crois pas Ahmadul Xadim Mbakke ay sabure fi ngeen bëgg jëm dem leen fa un peuple buur sin ku mandoo fen sama maam sa Mori Touré la jor ngoona la tur Diop Nelson Mandela les résistants un peuple et son seul magistrat. C'est le magistrat qui dirige l'action de la justice. La police, là, tout ce que fait la police, c'est le magistrat qui le gouverne. su ma leen ne xeex bi xeex bi foog policiers yi nekk si kon gi ak gendarme yi nekk si koñ gi juge mënul dóor mandat de dépôt kenn te PV e ñëwul ñu ngi takkal juge yi di saaga juge juge mënul dóor kenn mandat de dépôt te enquête ñëwul signature officier judiciaire bu prêter serment ñëwul OPJ officier de police judiciaire moo koy transmettre juge non dul fa ay duulam ñu tey xet muy gendarme muy policier il ne porte pas de kuy amatul ay góor Sénégal loolu suñu problème PVA c'est pas sérieux C'est pas PV yow booy booy tontu ku débat débat dof danga koy wax waxi dof pour dagg xolam en avance PV ya PV ya moo leen tëj yéen ñëpp PV ya moo ñu dugal ñun ñëpp PV yi moo tax tey problème bi dal Sonko yëpp dal Sonko xam nga ñu ngi yuuxu maa xam jàll ñu ngi mais ñoom colonel Abdou Mbengue ñooy source ba gars yi source bi dafa am su suuf source boobu ñoo dem préparer gars yi ba fële ba biir Ziguinchor parce que Moussa Fall semaine passée yëpp ak yóbbu ñoom ñëpp ñu ngi woon Ziguinchor mais nag l'état s'est divisé en deux Ba dafa am état am Macky Sall am état Sénégal am état muy ñetti état moo nekk Sénégal moment bi yu bokkul te lépp di état assure monsieur bi lépp di état ñetti état yu bokkul état Amadou Ba état Macky Sall ak état Sénégal moment yi bokkutuñ doxin Macky Sall moo waroon dugg Ziguinchor pour loon dugg fa xam na lu tax yebal nañu itam Moussa Fall jiitu na ils ont tout préparé ñoo xam mais man tey bu ma sañoon tey Amadou Ba ñu dóor ko fa bal mu dee mu jeex ñu xam ne kii dootuñu nekk dootul nekk charge suñu bopp France dootuñu jiital ci dara moo xam Macky Sall ñu xeex ak moom dóor ko bal mu dee ñu jeex yéen nekk ci ay dundantoog dem ci yeneen. Casamance bi ñu leen naan Amadou Ba gauche droite dinañ ko fa dóor ba duñ ko dóor bal déggoolu ma Papa Abdou Diouf fa lañ ko reyee noonu Macky Sall mënu fi créer affaire ivoirien ci Sénégal c'est impossible ku xamul xamul France la mu yónnee ci sécurité pour surveiller candidat moo ko xam xam nga ñun Ziguinchor lu ñu mën li ñuy def nii tàngoori bloqué circulation bi pour ko convoi Amadou Ba du jàll ndaxte libéré wu ñu Sonko ba pare ñoom ñoo isolé la Casamance. Ah, Amadou Ba ngi noonu suba suba Ziguinchor lay xëy ci mais tey si guddi gi nii mu ngi ñibbi mais du fa dem tey du fa dem même même bu fay dugg nii si guddi gi jeunesse bi dinañ génn. boloke li ma leen waxoon rek àll bi bu benn oto circulé ñëw ne day teeru Amadou Ba oto bu circulé dinañ la tegal miin nga tëb loolu moom je vous ai averti kooku ant ñun la kooku entre ñun la suñu biir on va régler ça jóge ci village yi ñoom da ngeen di yuuxu teeru Amadou Ba du fi amee mais entre ñoom lu ñuy joti seen seen biir loolu ça ne que loolu ñoom la concerne man du ma ci débat tey bu ma jotoon tey ordre bi heure deretu Macky Sall tuuru na deretu Amadou Ba tuuru na deretu Antoine Diome tuuru na deretu Marème Faye tuuru na gars yi man dam ci am ay morde du ma nekk fii xaar ba tey naan leen nañ ko jongle gauche droite gëw ma loolu gëwma li Sénégalais yi gëm gëwma yàlla ji ngeen gëm bokkuma seen diine hypocrite bi ngeen nekk jullit laa damay julli kese te dara lu julli te defoo ko nekkuma ci loolu dama am lakkum diinukum waliya diin moo ma sonal Sonko il souffre ndax xam ne ne plutôt que les jours approchent plutôt Macky Sall moment yi moo doon wut pour négocier non mais plutôt les jours approchent plutôt que les taux se resserrent autour de quoi du pays bu leen foog ne Sonko moo mettile moment bi Sonko mettilewul mais xam nga kan lan moo ko tax di souffrir réew mi réew mi moo ko tax di souffrir boo leen gisee état nangu Sonko def déclaration ah xamal ne boobu ñoom xam nañu fi ñu toll xëy na ñuy kacaw kacaw di wax ci kaw si suuf ñoo xamul li baax si suuf Sonko yéen lay souffrir moom waxoon na leen ko def na testament ci pàppam jaar tàggu yaayam nay leer rek wax naax ñun mu clair man menaces yi am yëpp boo leen xeexee Sonko yi déggu leen li ma leen wax de bu ñu xeexee ñun deret bi day bëri rek mais Macky Sonko foog des te Sonkoy des Macky du des bu ñu demee ba le vingt cinq février dara Macky Sall doole la ñuy imposer te yéen waa Pastef seen communication bi ngeen yor si panel yi moytu leen communication bu baaxu ci combat xam nga lan la communication boobu ba ñi nekk ci panel yi dañu bokk ci yeneen parti politique yi te mun leen leen rendre compte déjà 43 partis yi ñoom Mimi Touré ñooñu lu muy tuuti tuuti tuuti tuuti 43 électeurs la bés bu leen Macky Sall rawee 43 am 50 virgule 43 pour cent ngeen ñàkk élection yi maa xam ngeen loolu passez vous réfléchissez mën nañ dajale fonds yi mën nañ dajale yëpp mais heure don du soir nag jot na bàyyi leader yi nga xam ñoo def vrai don du soir ñëw bàyyi seen lépp jël seen parti ak seen lépp jiital Ousmane Sonko léegi nag leader yooyu nañ leen jël nag teg leen au devant de la scène ñoom nag ñu commencé porter le combat moo gën a rafet ay communication passive porte parole passive porte parole kii déedéet. parce que gis nga nit nit dafa lëndëm te jalousie dafa garaaw xam nga ñu bari ñu ngi naan non mën nañ dem ba cappaandaw gi ngeen gis ñu war wala mën nañ dem deuxième tour ngeen gis ñu àndoon ak Ousmane Sonko war dem ànd ak keneen déedéet ça dépend li ñu leen di won ci biir ndax dinañu wóolu des wala duñu wóolu des. est-ce que vous me suivez du question de affaire politique de déedéet. parti politique yi bu leen jàpp ne ñëpp a ñëw jàppale ni Ousmane Sonko rek ndax da leen neex déedéet ñii intérêt moo leen ci dugal gaay yi parti politique politicien du def dara saa dara. ba ci giraas yi boppam ay ñoom mimi yi ñuy rey seen bopp yi yëpp bañ deeti politique la ñii duñ def dara sans dara. duñ def dara sans dara yéen parce que ngeen bëgg a aaki moo lépp déet politique doxewul noonu de. foog ñu oser xam ne moment bi dafa am ñeneen ñu porter combat bi ñeneen ñu foog ñu boole leen ci ñeneen ñooñu foog ñu boole leen si léegi fexe ba andi coalition yéen seen coalition bi ngeen teg mooy Sonko ndox bu sedd bi ngeen teg ngeen jël ko yóbbu ñun ñi teg suñu pont Sonko brut nag ngeen bàyyi ñoog suñu terrain ak naka lañ koy xeex xeex nu ñuy combattre ñii ce qui est sûr certain mooy waxu Sonko day sax. li mu waxoon France 24 bu soobee suñu borom day sax bu bokkul nga pays sera au chaos élection du fi am Macky moo ko gën a xam. ruube bi ñuy ruube nag naan leen conseil constitutionnel déposé nañu lii déposé eh xoola gaayaan ci ay protocole c'est les protocoles point final. fii Sénégal la dañuy waxtaane lépp kenn moom lu gars yi bëgg waxtaane waxtaane ko mais di leen ruube naan leen ay Sonko day bokk. Sonko du bokk ak non avocat yi dugal nañu avocat yi eh, le vingt ba le vingt ci laay mën a waxaat tey la kañ sax quinze ba le vingt si la ñuy doog xam ndax sunkoo day bokk wala du bokk li ma leer ba leer ci protocole de Cap Manuel yi moom Sonko signé wul nangootul recevoir xëy na nag ñii foog na ñoom ay géeree lañu bës bu maam ISEM ñëwee ne Ousmane Sonko day bokk ci élection bi par force surtout maam secrétariat d'état américain xam nga ñoom commencé nañu wax bés bu ñu liiree leen ba xam ne Ousmane Sonko day bokk par force ba ñu imposer ko nag ëllëg li ma leen waxoon daal laa leen wax ren de bës bu fi ISEM imposé Ousmane Sonko te ñun xeexaluñu Ousmane Sonko li ma leen waxoon laa leen waxaat de. Sonko révolution la andi parti politique yëpp lan moo taxoon daaw ñu def ay levée de fonds lobby yi ñoo leen daan téye su suuf multinationale yi gis nga parti politique day am kenn milliardaire bu volontaire ñëw ne maa fii def lii pour parti bi yegg fii passif amul loolu ci cotisation lu ñu yaakaar hmm, kenn du wax lépp <laughs> kenn du wax lépp ndax wax lépp mën na tasum réew mais protocole ba li ma leer ba leer te wóor ma ba wóor ma ba bésu tey nii ba tey ba tey ba tey man xam naa ne suñ ko du bokk bu bokkee maam isem moo ko ci boole te bës bu ko ci maam isem boole bés bu maam isem boole sunkoo ci élection bi dinañ am ministre yoo xam ne da ngeen doon yaakaar ne dañuy disparaître ci politique te dañuy des. kalaasu ñoom Babacar Diagne gi nekk fi depuis 1970 dañuy des dem leen xool ñaata élection présidentielle la Babacar Diagne géré wul bëriwul Sénégal xam nga yéen ISEM yaa ngeen koy xool si nilaar xaraamata njaay yi ñii bokkuñu sax si ISEM gouvernement Macky bi xamuñu ISEM bokkuñu si ISEM golo golo la ñu bokk mais affaire bi yaatu te large maam tubaab nag mu ngi wax de bu maam tubaab waxee nag ba saa waay bokk ne ku nekk jël ay responsabilité am xam ne du ñun ñoo ko xeex yéen Ziguinchor nag préparez-vous au combat Amadou Ba du fa am jàmm suba matinal yëpp CMT lycée Djignabo Djibok Périssac yéen les élèves xeer bu mu jóg sonkoriser leen Casamance yëpp dinaa jéem a dugg ti leen dugg Grand Dakar xool sóoru sonkoriser leen Ziguinchor la maximum bu mu wax bu leen ko déglu ba kenn xeex ak yéen foofu problème bi ñu fa bëgg a créer xam nañ ko mais yéen sonkoriser leen fecc leen seeni caméra bu leen fàtte filme tout en direct bu leen dara rëcc bu leen dara rëcc seen maire la ñu tëj ñoom seen nulaar bi du fa dugg di wax c'est impossible c'est impossible Amadou Ba on n'a pas besoin de toi à Ziguinchor s'il te plaît rek Tant que vous n'avez pas libéré Sonko, on n'a pas besoin de toi. yéen la population restez au veilles et restez au grain bu guddee nii ngeen bàyyi kook yoonu moom kese comme yéen bloqué ngeen ba adduna yëpp yëg ngeen ne bloqué bloqué ngeen ko commencé naa am ay vidéo alhamdulilah téye leen lépp xam naa ne dina yegg si Bignona d'ici combien de minutes il est zéro heure dix-neuf dina yegg si Bignona mais bañ leen de comme d'habitude sont corrigé tout sonkoriser tout lillahi wa rasuli sonkoriser moi tout sans violence yéen population de Ziguinchor te mais sonkoriser tout sans violence sonkoriser tout sans violence Macky Sall day jaay ne dafa am lu mu bëgg a def waa ji waa ji moo ko ëpp sécurité ndax waa ji ñeneen a ko jox sécurité du ma dugg ci seen débat ñoom la seen biir pasuma pasuma mbare su ko non ko abidjan